sommes aujourd'hui, nous sommes sans aucun doute les fruits attendus après tant d'années de labeur, des efforts conjugués mutuellement et soutenus inlassablement entre nos braves et généreux parents, responsables de nos établissements et professeurs. Mesdames, et messieurs, animés par cet esprit de reconnaissance, il m'échoit aujourd'hui l'honneur de vous présenter nos sincères remerciements. D'abord à nos généreux parents, nous ont fait venir au élevé en dépit de la conjoncture, et ensuite aux responsables de l'établissement scolaire, à Arab Nous sommes témoins de votre sympathie et de votre courage. C'est de vous que nous avons hérité cette volonté de pouvoir réussir dans nos études, malgré les obstacles qui rendent difficile notre chemin. Raison pour laquelle il est de notre devoir à tous et à toutes d'unir nos forces ensemble pour donner la belle image de notre chère école et ainsi renforcer sa bonne solidarité. La clé de voûte pour la réussite de toutes les générations, présentes et futures camarades et amis, joie et prospérité pour la famille que nous constituons. Vive le groupe scolaire d'Aréasine, que nous soyons l'espoir d'un avenir meilleur pour notre communauté et pour toute l'humanité entière. Je vous remercie. Django by Masya Allah. begitu ñu dimbali xale Cheikh Serigne Mansour muy Cheikh Clément du noonu ah. Cheikh Clément ci jotaay bi yow ñu ngi lay dalal yow sax yaa ñu war a dalal ndax ci sa diwaan lañ nekk ñu ngi lay nuyu Cheikh Clément di la sargal ci biir jotaayu alquran bi jotaayu daara Yaasin alquran al hakim merci beaucoup. xale yi ñuy continuer ba léegi seen prestation ñoom waa mooy section liñ doon def nag arab la ak alquran léegi nag madame baa na la taxaw nee na day def français ak ñoom nañ leen déglu bismillah madame yaag say mooy section day eh, xaar mais mulher, leen de macha é tey moom mais c'est la sama classe je vais choisir un d'entre vous. Allez, viens te présenter. Je présente le silence. Quel est ton prénom? Mon prénom, c'est... Quel est ton nom? Mon nom, c'est Quel âge as-tu J'ai 4 ans. Où habites-tu J'ai assez petit. Allez, alors. Allô, allô.

Iya, iya. Insyaallah. Kita bayar malu kita. Boleh ke orang Indonesia se? Ya. Saya modal. kita Siapa sih? Surya. Untuk hari Malaysia aku biar mama. Mama. Mama. mama.

Ujibe horojantego, oskovala diu. Apranon padaya u bejeri. Apranon bajanti. Ne bajanti no, buki onja Lalu mau pulaar la lalu mau. ci arab wax nañ ko euh, allah barakallahu fiikum. ñu leen di présenté Baye Moussa Loxo dañoo mu tari ñu benn saar. Baye Moussa macha allah Seyda Maguette Niass jërëjëf yow yaag say xale macha allah léegi nag ñu bàyyi français bi moom tam ñëw waaw dara yaasin franco la arab bu ñëwee macha allah day bàyyi bi tam mu ñëw. li ñu liggéey ak xale yi bëgg nañ ko wan parents d'élèves mu nekk liggéey bu am solo boo xam ne nii inspecteur euh, euh, technicien de l'éducation mu ngi toog di jël note mën a xam lan mooy li nga xam ni moo xew ci biir daara ji noonu tamit waajur yi joxe seen doom xam tamit joxe giñ joxe seen doom ci daara ji li fi ne loolu dafa am solo kon euh, madame Thiam yow mbir mi ci yow la dal nga gaawtu ci li xam ne mooy yàgg say xale incha allah ñu leen dellu nag di leen nuyu yéen ñëpp di leen ziyaara di leen tatagal ci jataayu alquran bu mag bi leen Oustaz yaa ngi doon wax léegi ci eh, usul awaaxir min shahri ramadan nga dikk boobu tuuti rek balaa madame Thiam di pare. Eh, comme ni nga ko waxee fukki ci koor fukki fan yu ràññeeku la ci biir koor ndax borom bi subhanahu wa taala ci njàngale ngeen bi sallallahu alayhi wa sallam wax laylatul qadr mu ngi ci biiram biiram biiram te boo ci jaamu sa borom bi subhanahu wa taala da ngay am équivalence bu jaamu borom bi subhanahu wa taala quatre-vingt-trois ans mooy juróom ñett fukki at ak ñett bés la boobu xam ne it mboolem programme yi nga xam ne dafay dafay dafay di ci bés boobu lay borom subhanahu wa taala di yebal ay malaayika ñu indi loolu loolu ñëw na ci suratu duxaan xaytu qaal fiha yuftaxu kullu amrin xakim amran min indina inna kunna muslimin aywa fadilata nabu am ngeen micro asalaamaaleykum wa rahmatullah تفضل David, David, David, euh, s'il vous plaît, permettez-lui de prendre la parole. dama bëgg dugg tuuti rek. Mor defal ma micro. Oustaz. la am ci kaw suuf. بذكركم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل رأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلكم يتفكرون وكل أدي بيس الرباعي صدق الله العظيم sama beneen doom bu ma dippee sama kilifa gi afala yatadabbaruna am ala qulubin aqfaluha muy mawludu loxom ñuy toog mhm. sëriñ mawludu wala imam mawludu mhm. ñaari xale yi nag dafa am nuñ may def fekkee naa ci sama lu bari ak sama mag ji sama mag ji ali dañ koy waaye moom nee na bàyyi ma ko jur waaye du sëriñam sama bàyyi sëriñam mu jaar ak sama bàyyi bu bëri ñaari xale yi nag ma waaye ñetti weer gëj na ma wala ñeent déggoo ko man kay saa yu mën a bay moodul rek am loog man da la ñu fekk ma sama néeg ne daanaka dañ may jooy loo jooy ñaari xale yi daal di may def ñaanal leen fan yu gudd أجمل أكشكرا رب سبحانه وتعالى لن نعم وقضى ربك على تعبد إلا إياه ومن والدي أحسانا رب تنتمت ويجب لك حياتي kan wala loolu waaw napp ma wax waaw ma ko complice xale yi la moo tax xale bu nekk rek faaw dañuy daw nga ñëw ci oustaz waaw loolu lay dund ci alquranul karim

تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة Bonjour.

xale yoo xam ne nii macha allah mën a guddoo tey sax waaye gis ngeen xale yi ñu jàngal leen ba ñu mën a bind kon tàccu leen ñu ngi dalal nag euh, monsieur Moussa Dieye egsi na ci jataay bi ñu ngi lay dalal di la wax egsil ak jàmm ahlan wa sahlan wa marhaban bikum waaye gisaguma ñu bari ñu yëngatu rek liñ doon wax ci wàllu alquran. 三三。 tukki sa tànk ngir du naaw na gaaw tuuti aywa aywa Binta Ñaŋ Binta Ñaŋ ñu ne nga ñëwee nii xale yi am na lu ñu bëgg a wane suivre ndax li mu gërëm asalaamaaleykum sama turandoo na nga def maaleykum salaam Adja Binta na nga def asalaamaaleykum góor gi nga def maaleykum salaam soxna si nga def maa toujours sama doom bi ñu mat Mencar khaldah lamun di satu jito. Pamlena BM terima kasih bapak. Umpere sekolah dong lejang saya kampung. Tết lấy qua pes có vẻ tánh như trăng này. Cô trăng của nhà tươi, nàng ấy phải nhà tươi giúp Eskiri thua gai trăng. Đồng bộ bà sẽ ra rau, sầm với cháu ấy các sân phần này kể. Damona Fatana Suratuna Suratul Kurs Akhlakon ini Lakon ini Kompran La la toro, De de Laten lotoro elekatruma. Mamsahjang wanafuda. Redua dalafa. Redua dalafa. Zedua rekrare. Aladasa. Zebazredame. He abon something. Zesre medical. Dale aleko. जुगासोना अमसुते का सफर किए पूरा मेरे दम इसके orang गिले गिले गिले Panorama Zambu, Tarai Samadu, Mimpi BTS, Nusamadu Jamu, Messi Eko, Nusamadu Laika. Buku-buku

استعدوا استعدوا استعدوا لا السماء لا السماء لا السماء لا السماء كعبين كعبين كعبين كعبين ما شاء الله أخلوا أهلا وسهلا ومرحبا بكم يا وسط يا عماد الدين واحد اثنين ثلاثة macha allah may ko si yeggale rek waaw macha allah حبيبنا اعتدال إلى السماء لغي ما شاء الله إلى السماء لك سر عند الله بينك أنت وبين الله di dalal délégation Kabeb ba monsieur Niang ñoom ñu leen di dalal ànd ak monsieur Wade ak Adama Faye nga xam ni moo franco ci kon loolu am solo trop ñu déglu yi. Mama, fukki fan la njëkk 妈妈。 تنقل قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا kon tuub leen te delloowaat seen xel si yàlla te ngeen xam ne man fukki fan yu mujj si weer di nekk si digg bi chưa cà phê cà phê cà phê cà phê còn em kia bù và em này ta em kia bù anh nhiều anh em zoom nạp tiền rồi em còn còn nhiều anh em watch cà phê cà হাবিবুল্লাহ মাশাআল্লাহ হাবিবুল্লাহ জাযাকুমুল্লাহ খাইরান আইবা মা শুকরান শুকরান মাশাআল্লাহ ইয়া হাবিবাল্লাহ ñu war a def gymnastique nañu waaj ñoom tam ñu ñëw gymnastique gymnastique yéen la ñuy xaar dugg si leen habibullah ma sha allah jazakumullahu khairan shukran شكرا يا حبيب الله قال بوكو واحد اثنين ثلاث Nous yu ñu école waral pour euh, une petite démonstration avant de commencer démonstration bi donc dañuy passer le micro à Adja Fatou Deme mu jox ñu définition de l'éducation physique et sportive L'éducation physique et sportive est la partie de l'éducation générale qui, utilise, qui est utilisée comme moyen. L'exercice physique. C'est un ensemble de moyens méthodiques destinés à développer, améliorer et entretenir les qualités physiques, intellectuelles et morales qui permettent une meilleure adaptation de l'individu à son milieu physique, social, à son épanouissement et à l'affermissement de sa santé. Merci beaucoup. Donc, euh, définition bi mu joxe définition yi dafa bëri donc moo tax ñu tànn ci benn pour au moins ñëpp comprendre importance su éducation physique ci biir école donc ñenn ñi dañuy yaakaar ni foo la alors du foo day euh, contribuer ci lu bëri ci développement wu xale bi mais aussi développement wu ci côté sociale bi aussi ci côté. côté physique il donc a une importance aussi côté moral aussi voilà donc euh, nous allons passer à la démonstration de quelques éléments après cela on passe à à la démonstration des enchaînements c'est bon allez quatre sur les tapis d'abord Adia Fatou et vous et Les autres descendaient sur les côtés. Allez, reculons un peu. Les autres, Voilà, on va passer à la salutation. Top, c'est parti. Une. Deux. 3 et 4. Allez, on revient. Saut vertical. Roulade avant simple. Deux pas en arrière. Roulade avant assis. Chandelle. Hop, on revient debout sans poser les mains. Saut demi-tour. Fente. Planche faciale. Hop, on revient à la station droite. Pas de bruit. Top, c'est parti. Une, deux, trois et quatre qui est joint, saut demi-tour. Deux pas chassés, top. Saut groupé, top, c'est parti. Bien, hmm. allez, salutation finale. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Euh, euh, allez salutations top c'est parti une deux trois et quatre saut vertical fente planche faciale on revient pieds joints roulade avant simple Saut demi-tour. Roulade avant, assis. Voilà, chandelle ou bascule dorsale. Hop, on revient debout. Saut demi-tour. Pas de bourrée. Top, c'est parti. Pas de bruit. Top. Une, deux, trois et quatre. Bien joint Saut demi-tour. Deux pas chassés. Top. Se groupé. Top. Très bien. salutation finale Bien. الله أكبر جميل ça دوكار بوي يجي في دلك جبنا سيدي دوكار بنوات Comme ça, c'était la démonstration commune. On va passer maintenant à la démonstration individuelle, des enchaînements. Ah. D'accord. D'accord Adia Fatou Dem. En place ja faatu dem mooy wane boppam ja faatu dem ca ci mustaga ja faatu dem hmm hmm ja ya, faatu dem mo ngeen gis noonu mag ñi mënuñu ko ñun lii moom ñun samay xale ya waaye ñun mag ñii yée ku ko ci ku nga léegi nga wo léegi nga dox sa koor ok allah. kii Adja Fatou Seye. kan mooy Fatoumata Noxo Fatima Noxo moom tam muy ñëw wane boppam ah hmm. waaw talal tànk sëgg cëppeelu ah kooku mooy borom daara ji ah waay waay waay Fatouma Noxo masha Allah yaayi xale yi masya Allah ya, ya, Fatima, ah इसकी माशा अल्लाह माशा अल्लाह Zawjatul Naho Zawja nag mooy ñëw allah Zawja Zawja nuyoo na ñoom seen armation noonu la ñuy nuyoo ah doom jaa ngay xalangu ah, macha allah zawja ah, waaye may leen loxo zawja waay ah. may leen loxo zawja ah waaye xale yi ndekete du alxuraan rek lañ mën a mokkal ak français de macha allah ah zawja ca peelu sëgg ah macha allah saw ja tëb na tëb gu mu dugg tëbug nuyoo waaw kii nag mooy kan Oumy Gueye Oumy Gueye ngoo déggal nuyoo na nuyoo nuyoo sinuwaa ba waaw ñoom dañoo wax de ak ay ay ishaara ay signe rek la ñuy def waaw tàllal na Oumy Gueye ngoo lii day mag mu ko fi jéem sa subhanallah Masya allah waaw ah Oumou Gueye mu ndeelu na Oumou allah umi Gueye Oumou Gueye xala mu na wax tàllal na DJ Daud tadi Wejo. Wali mata Wali mata gay Nuyo na mom nuyo sin Talal na lo kaya umi. Wali mata Wali mata talal na tangka pa ka nao. Eh wali mata. Idei. li ma lii ba nga bàyyi ci kër ga bu ko géewee léegi ñu yóbbu ko fee ka sapeur lay jëm <laughs> waaw lii kay ah, ah, ah sëñ loxo nee na am na kàddu gum ci dool <laughs> ah day day sëñ loxo bi moom mënoo ko moom. <laughs> très bien. suivant. waaw. Mame Diarra Seye. am jaari sey ci nekk ci kaw xalal am naa nuyoo na nuyoo suñu yaaba nag maam jaara xalal dade maam jaara tàllal na tànk yaag loxo ya jumale na ko ca kanam wëndeelu na moom maam jaara hmm? macha allah moom hmm? ah jaara moytul waddul de tànk ya la wàcce rek la hawla wala quwwata illa billah masha Allah mam jaara wondeelu na wallah mam jaara tàllal na loxo beneen ah, ah. nuyoo na nuyoo si waaw xam na tudd daal. macha allah tàcc leen الله اكبر ولمتى صعب ولمتى صعب ولمتى صلى صلى ولمتى صلى نغو نيو نيو سي ما تالا نا لوخو يام ما شاء الله

lii de ku ko ci jéem ci ñun bu moytuwul fukki fan yi weeru koor doo ci am tuyaaba ju bari. tuuti pass à côté. waaw macha allah. xale yi yal na leen yàlla lafal catuwaay. amiin xale yi yal na yàlla barkeel leen def leen ay mag. amiin xale yi yal na yàlla yokk seen wér. amiin xale yi di ngeen mokkale alquran. Hmm. yal na leen yàlla dolli sutura. amiin yaa rabbi ah, lii lépp nag seen wéjur yi ñoom ñoo moom fay bi ndax ñoo wóolu daara yaasin andi leen. Hmm. waaye daara yaasin tamit waruñu wéjur yi. ay wallah waruñu wéjur yi. ndax nañ leen français jàngal leen arabe jàngal leen alxuraan. kii ku mujj kii mooy wane li mu moom mooy kan. Ndeye Oumy Seye Ndeye Oumy Seye yow la ñuy déglu. xam naa day jaar fa moromam yi jaaroon rek. wala fu ko raw. wala fu ko raw ah Ndeye Oumy nuyoo na nuyoo chinois chinois yi moom du ñu wax de waaw dañuy def dañuy def rek jàpp seen jàpp. tàllal tànk ba. mu ngay dem ca kanam na moom macha allah hmm. xam naa nag après julli prestation am solo dina fi am. waaw ah, incha allah. oustaz bi tey dina fi def conférence bu am solo. waaw ci thème bu diggante démb ak tey yarum démb ak tey oustaz bi tey mooy def conférence boobu après julli lay doon waaw da nah, umi sëy macha allah moom tam mu ngi wane ni boppam de talal na loxo ya ca péeru xalangu na xale yu nag seen xalangu gi moom du yëfi du yefi mag moom waaw mag mo xam ni óom metti wala tànk ya xam ngeen ni manul lii. nuyoo la nuyoo. très bien macha allah. allez debout. barakallahu fiikum waaye xale yi. jërëjëf ñëpp. monsieur Sarr kontaan nañ ci yow. merci bien. voilà merci beaucoup. merci. allez salutations. salutations chinois Moi, chinois yi ni ñuy nuyoo.

pardon ñoom xool ci ginnaaw tàmpaay bi la ko boot ñu roog ñu moom ñu bootee roog a liggéey macha allah ba ñëwee ba léegi yàqum daal ci liggéey moo tax buñ décoré yaa si daat bi dañuy décoré ñi nga xam ne ñoo nekk ci ginnaaw moom nañ ko ñooy ñëw jiital ko sopp ci ginnaaw lu def rek baax kon macha allah suñu wax dëgg yàlla bëgg nañ ci yéen ñi ngeen jàppale suñu tante ji gis nañ ko ba dara du dara moo fi nekk nag ba tey dara di dara waaye yéen it ba ngeen ñuy yàqoo leen ci dara ngeen ànd ak moom ci liggéey bi ah, yal na yàlla boole leen ak suñu wasila suñu bàyyi di alxaaji na ko mu yàgg leen a jiite ba ca aljanna muy mu ñuy jiite ñu topp ci waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. yéen ndaw ñi déglu Come on. Say it. شكرا لك فجزاك السلام عليكم ورحمة الله نونا نعم يا رب وعليكم السلام ورحمة الله نونا نعم يا رب خلق اللي بيوخ لأننا وما شهدنا إلا بما علمنا tuuti la xam ci yaayam yaayam wan ko ginnaaw bayoo koog soxna Fatima mii muy daana moom ak jóg ak ay rakkam ba dencees ko daane yi ma dégg man lu may waññeeku damay dem dem bi ñëpp ay dem waaye xale yi bis bu seen bàyyi tàllale loxo ma ngeen leen ko jox lim ci man mënu leen ko waaye may li ci Fatima ma ko ci. billahi lazi la ilaha illa hu. seen maam ma nga nee toog mu ne ma déglu leen foofu da ngay da tabarkala macha allah ñeenti doom lañu wax leen macha allah. macha allah. damay dégg Sénégal yi naan boo koy jëloon li bam tële woon. ay doom da naan am ay doom. ki ko ki ki ko wax ak ne macha allah ñaanal leen jaar waaye ay bant. ay bant la wax boobu musiba la. seen yaay ne ko da ngay jël ñaar yu góor yi seen maam bay bañ ñaar yu jigéen ñi. ma ne ko jëlal ñaar ñu góor ñi jox ko ñaar ñu jigéen ñi. kala ko junna tariq. waaye jigéen lañu war a yar piir ma ñi dañ daan nettali xale góor bu xamadi baan takal ko soxna bu ñuy reer muus mi jël génn bi booba loxo la ñuy lekk di ko def fii ci ndab li bàyyi jëne sip waaye muus mi gën a xamadi xale góor na la ko bàyyi takal ko soxna maa ko góor a xamadi fuuf kon buur moom lu mu réew réew bu amee soxna moom dana ne du ñu ne ngeen baax waaye jigéen moom bu réewee adduna tut kon na nañu yar jigéen ñi nañu yar jigéen ñi de góor ñi ñu ngi wut ci ñoom ñaari jikko waaye jigéen ñi ñu ngi wut ci ñoom benn bu am doole mooy saa ci diin bu amul jigéen ju am diine amoo tus kon nag soxna si